lenn ci ay atte yu aju ci fukki fan yu njëkk ci weeru tabaski di weeru aj fukki fan yu njëkk ci weeru tabaski ci weeru aj ay fan yu am ngëneel la ngir yowmu tarwiya ci la nekk mooy bés bi ñuy tàmbale aj juróom-ñetteelu fan bi daf ci nekk na ci ba léegi taxawaayu arafa waaye tamit nekk na ci ba léegi bésu tabaski boroom bi tabaraka wa ba léegi dafa giiñ ci fukki fan yooyu ci alquran ci wax bi mu wax wal fajri wa layaalin ashr ibnu abbas mu ne fan yooyle mooy fukki fan yu njëkk ci weeru aj di weeru tabaski loolu mooy li ëpp ci firikati alquran yi li ñu tudd yonent yàlla bi tamit sallallahu alayhi wa sallam nee na amul benn ci ay fan jëf ju baax def ko ci yàlla gën kaa bëgg ci defee ko ci fukki fan yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci weeru tabaski di weeru aj kenn ci borom xam-xam yi abu osman an nahdi yàlla na ko yàlla yërëm mu ne soxaaba yi ak ñëwoon seen gannaaw nekkoon nañ di màggal ñetti fukki fan bokk na ci fukki fan yu njëkk ci weeru aj ci weeru tabaski bi ak fukki fan yu mujj ci weeru koor ak fukki fan yu njëkk tamit ci weeru tamxarit kenn ci borom xam-xam yi ibnu usaymin yàlla na ko yàlla yërëm wax na ba léegi bu dafay daal di yell ci sàkkukatu xam-xam ñu daal di leerala nit ñi ngëneel bi nekk ci fukki fan yi ngir kat lépp ci doomu yi duñ ko sàggane waaye tamit ngëneel bi ci nekk lépp ci doomu yi duñ ko réere dina ñoolal nag ay xeetu topp yàlla yu bare ci biir fukki fan yi yenn di gën a feddale ko yeneen yi bokk na ci lii di woor yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa nekkoon na di woor juróom-ñeent fan ci weeru yu njëkk ci weeru aj bii di weeru tabaski waaye tamit noonu tamit la doon wooree tamit bisu tamxarit di woor tamit lii di lundi ak jeudi yu nekk nekkoon na tamit di woor lii di bésu taxawaayu arafa mu digle ko ci ku nekkul ci béréb boobule mu ne woor ko kat dafay far bàkkaar at bi weesu ak at bi nga xamante ne moom mooy ñëw bokk na ba léegi ci xeetu jaamu yàlla yu ñu yoonal ba léegi ci fukki fan yi lii di aj ak umra yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam ne lislaam kat duñ koo tabax ci juróom bokk na ci seede ni amul ku ñuy jaamu ci dëgg ku yàlla ni Muhammad yàlla moo ko yónni benn taxawal julli ñaar joxe azaka ñett aj ñeent ak woor weeru koor juróom wax na ba léegi salawatullahi wasalaamu alayhi ni aj bu ñu nangu dara du payooram lu dul aljanna muttafaqun alay bokk na ba léegi ci ngëneel ak jëf yu mag yu ñu war def ci biir fan yi mooy lii di rendi tabaski yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa ne képp ku yàlla may njëkk bu mu mën a jëndee xar te rendiwul kooku kat bu mu jege béréb bi ñuy jullee ngir tëkkoo ko ci nay bi mu def wax na ba léegi yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam ni bu weeru tabaski tero weeru aj teru képp ku bëgg rendi bisu tabaski ah bu mu jël bu mu dagg lenn ci kawaram walla ci ay weyam bu mu daal di rey gàttam bokk na ba léegi ci jëf yu màgg yi nga xamante ne war nañ koo def ci biir weer bi ay xeetu mbaax yu bare te wuute moo xam jàngal quran la wala saraxe la wala yeneen yi dul yooyu ngir yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam ne amul benn fan cëf ju baax yàlla gën koo bëgg ci defee ko foofu lu rawee fukki fan yi ci weeru tabaski ci weeru aj ñu ne ko donte génn dem xeexi ci yoonu yàlla la mu ne donte génn dem xeexi ci yoonu yàlla lu dul waa joo xamante ne génn na ak alalam waaye du na moo dellusi waaye tamit du alalam moo dellu dellusi bokk na ba léegi ci jëf yu màgg ñu waroo def ci biir weer bi mu di di bëreel ci wax allahu akbar laa ilaha illa allah alhamdulillah ak jàng alquran yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne na ngeen bëreel ci fan yi ci wax laa ilaha illa allah wallahu akbar ak alhamdulillah wax na ba léegi yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam ni ñaan bu gën ci ñaan yi mooy ñaanu bésu arafa waaye tamit lu gën li mu wax moom ak yonent yi nga xamante ne ñoo ko jiitu mooy wax la ilaha illa allah waxdahu la sharika la lahu almulk wa lahu alhamd wa huwa ala kulli shay'in qadir